asalaamaaleykum monsieur le premier ministre jon hmm, Dione ñu naan la Boun Abdallah Dione kii sa mbokkum taalibe la xam naa soxlawul sax may présenté wu di wax sama tur waaye genn kilifa gu nekk fii ci Touba moo ma yónnee woon sab numéro li tax ma yónnee ma ko yit man maa ko ko laaj waaye ba ma ko koy laaj dama ko wax ne ko laajuma la ko ngir wut ab relation ak moom laajuma ko ko yit ngir bëgg ko woo ngir wax ko sama yittey bopp waaye situation réew mi laa ko bëgg a wax ak responsabilité ci bi mu ci ma xam ne administration moom dafay juddu ndax waajuram wi ko jur bu demee ba am tur woo xam ne ñi ngi ko doon wooye biir gàjje jonn jëf jaa tax ndax ku ne xam na doon woon ab maçon ban koy wooyu biir gàjje kon administration wërta nekk gan ci moom ma xamal ko ne ko ku mata waxtaanal la ndax xam-xamam ak détermination warut doon lu yem ci régime bi yow sab xam-xam ñëpp dañ ko war a jëriñoo régime bu fi nekk da ko war a jëriñoo te mu mel ne responsabilité yi nga war a jël bokkul ak yi ngay jël damay bañ ñu bañ laa def nagu sarax coow lu am wala lu am rek ñu rend la jox la mbooloo mi def lay saam situation bi fii mu toll ak réew mi fii mu toll kenn warul laa dégg ci jafe-jafe yi ak réew mi fi mu toll nga di ci yëkkati sa kàddu ndax placé woo pour wax ci ndax ñaar mooy da ngaa far ci benn bokk yaakaar ba ca dolleeku it da ngaa nekkoon premier ministre ci gouvernement sortant bi fi nekkoon kon placé woo pour wax ci situation élection am na ñeneen ñun dénk loola te ngeen wóolu leen ba dénk leen ko kon placé woo ci di wax ay résultats xamna la ndax bima nekké dekk buñ naan daru mbacké muy bil ci wetu wayjur ay 10 km digënté mak wayjur dama daan yelwaan sa ba gosaas sa wayjur wu goor ak sa wayjur wu jigen accident biñu faato ya yoron auto bi diko dawal seen gër yelwaan si fa ba tàyyi kon du gan ma na sañ na la digal ndax sama mbokkum talibi nga nag sëñ axma mi nga sukk jébulu sëñ mustapha Bassirou lañ ma tuddee sëñ Moussa mii kilifaam di sama sëriñ kon waxuma ngir di wax akub jàmbur waaye damay njort ne sañ na maa wax ak sama mbokkum taalibe ngir laabire ko situation réew mi fi mu toll première responsabilité bi yow la ndax yaa njëkk génn ci télévision ci Sénégal jox ay résultats bu réew mi tàkkoon am nga ci responsabilité te dañ laa xasa a adressé daaru minam te sëñ Basiru rolam moo doonoon Europe pusa di ñaw kenn mës sa dégg daaru minam ci loolu kon ak far bum la dugal ci yenn yi ak lu gën a ak lu mën a xew ci àdduna yi pouvoiri àdduna yi la ci jiitu mooy xamal fi nga bokk ak lan moo la dugal daaru mi na mas na maa dégg sëñ bi di la li histoire ba ba ngay joy jooy don bu mu doon sa yitte na histoire bi dugg ci sa bopp bi kon yu bari doo ko def waaye wax la nga jooy ci jataay ba la yem waaye la sabab jooy ya moo war di nekk jeexat ci yow bis bu set nga xam ne doonoo même porte ki ci daaru minam da nga cee bokk Macky Sall da ko war a wax li fi nekk mu jàng ci yow ab yar jàng ci yow ak njub jàng ci yow ak teggin jàng ci yow ak maandu waaye kenn warul laa dégg ci situation réew mi fi mu toll looloo tax kilifa googu ñu toogee ma ne ko man de boo ma joxee numéro dinaa ko yónnee bataaxal boo xam ne bu ma ci paree man na maa supprimer numéro téléphone am ndax soxlawuma ko juróom-ñaari at la toog ci réew mi soxlawuma numéro am numéro bi li ma ko doyee mooy fexe ko yónnee message boo xam ne bu ma jotoon numéro Macky Sall yi noonu laa ko yónnee. situation réew fi mu toll Sénégalais yi ñooy àtte il faut que d'abord ngeen bàyyi Sénégalais yi ñu am conscience tranquille ci régler àtte liñ bëgg a def Sénégalais yi folli tawu leen ndax ku fi jëlee Abdou Diouf jëlee fi Ablaye Wade jëlee fi Macky Sall du la tax ndax Ablaye Wade moo defar mag Sall ni mu defaree tunnel yi ak autoroute yi noonu la defaree mag sàll mii daf ko tabax ndax ndobog tànk gu ne takkal na ko ko te dañoo xeexee jëlee ko fi kon folli du seen problème falit du seen problème ndax dañoo faloon Senghor far Abdou Diouf far Ablaye Wade fal Macky Sall mi kon falaat keneen du seen problème waaye li gën a am solo mooy ci histoire senegal ci taarix ñu war koo bind ëllëg say sët ak say sëtaat di ko dégg ñu ne lii déggoon nañ ko ci Boun Abdallah Dionne lii moo tax ma jël sa numéro bi ngir yónnee la message bi ginnaaw message bi nag soxlawuma tontu lu jóge ci yow di ñëw ci man waaye dama la ko bëgg a wax ngir mu dugg ci sa bopp xamal la ne la ba ci jiitu ab jullit nga jullit dafa am ay charte yu la lënkale ak moom am ay charte yoo xam ne boo xasee jéggi charte yi doodatoo ab jullit ak murit it daa am charte yu la lënkale ak moom te yàlla dogal na ab morit nga ñaar yi nag moo la tënk mooy ab jullit nga ab murit nga ñaar yu ci nekk nag dafa am charte nattal nattal sa bopp ci ñaar yooyu lan nga ciy doxal ba nga xam ne décret boo mën a tiim ci àdduna bàyyil xel ne yow dong boo ko tiimee am na ko la ñaareel sun borom mi ngi lay gis te loo bind xam na ko ca heure ba ca waxtu wa ca saaja waxtu wuñ la tëralee ci sa kuusu bàmmeel tëralee sa bàmmeel sun borom ne la pëkk-pëkk nga jàkkaarloog moom kenn kuy rendre compte ko dul yow amul kon situation réew mi am nga ci xalaat te tey jii boo ne woon bëreet borom jël sa bakkan bi Tuubaa yaakaar fii ngay ñëw tëdd kon situation réew mi am nga ci xalaat ab jullit nga ab murit nga am na lu la war sa diggante ak sénégalais yi ak njaboot la fi ñëpp am noonu doon fi amul njaboot buñ doon taal réew mi tey ji da ngay taal sa oto dem bàyyi woo fi njaboot gooy mën a sàmmoo ko aar sa jëmmi bopp ngay gàddu ak sa soxna ñun ñu des feeg njaboot responsabilité boobu ñu fi am moom lañ bëgg nga di ko dugal ci sa bopp bi te xam ne nun duñ ay jaahil wala ñu doon ay xar yoo xam dañ ñuy saam dañu daggat daggatee di yóbbu situation bi fi mu toll nga war a xool barki démb ñëw nga tuubaa ay yuuxoo jub ci sa jëmm jooju kenn yéenewula ko waaye Macky Sall mii ngay àndal la waa Touba bëggut te yow nga nekk taalibeb sëñ Touba di murit nit ñi yéene la ndam kenn yuuxoo wala ngir sa jëm waaye dañ laa yuuxoo ngir ka ngay défendre yow nga xam ne kooku défendre wut saaga nañ la xas nañ la yuuxoo nañ la traité nañ la lu bon te jëru ko sa jëmm ji nga war a gën a fonk ci jëmmi Macky Sall ji looloo waral ma ne naa la yónnee bataaxal bi ngir nga diglu ko mu dugg ci sa bopp bi nga xam ne asgor nga la ci jiitu ab jullit nga ab taalibe nga ñett yi nag bu doxee sa diggante yow duma ko weccu nit koo xamante ne bii pouvoir bu àdduna bi képp moo ñu boole ak i décret Abdou Diouf ana ñam signé loon décret ya tey jii Senghor ana ñam signé loon décret ya Ablaye Wade ana ñam signé loon décret ya Sall mi ci la bokk fu Macky Sall mu jég Ablaye Wade Macky Sall ñim signal décret yi suba noonu lay demee day xëy dootu mën a yoru biigam bii di signé benn décret yow da ngaa war a bokk ci ñi nga xam ne régime bu fi mën a toogati ëllëg dana soxla sab xam-xam ndax lu mu boni boni gone nga te am nga xam-xam am nga engagement macha allah xel mi rafet na li ci gën a am solo nag mooy da ngay jëfandikoo sam xel ca nam gën a rafete waaye bul xool ne lii sañ nga ko yaa gën a placé yaay première ministre boo waxee ni ñu dégg la Macky Sall def la nagu sarax woo xamante ne lu mën a xew mu denc boppam ak jëmmam génn ne la waxal nga génn wax ko ci noo xam ne sénégalais yëpp ay dar seen gémmiñ sénégalais bu ñu leen saa 99 yëpp dem na am na njàq rek mbetteel ci yow ndax dañ ne premier ministre bi ñu xamoon ci bi biñ koy doog a nommé nga jóge njaareem siyaare sëñ Muntaxa ca koor googa ñëw tuba siyaare sa ñaari wayjur fii ci armel yi ah, ñëpp daan ne ah am murit lañ fal taalibe sëñ tuba lañ fal ñëpp am ci yow yaakaar yow lu mën a xewit sa ndey ak sa bàyyi nga ñu denc ci barab yi nga war a ne kon tuba gi mooy dëkk mooy dëkk bi ñëpp war jëm si ëllëg ndax ba nga amee sa ñaari wayjur ñu wàccub liggéey fii nga leen indi denc leen te sa jëmm jooju boo liggéey fii nga bëgg ñu indi leen nun ñii noonu ak ñeneen ak ñeneen kon dawalal yërmande ci jullit yi yow am na loola lenkale waxuma ak Macky Sall personnellement ndax bu ma numéro mit bataaxal bi ma koy njëkk yónnee mooy na dawal yërmande ci jullit yi yow nag ñaar da la la mooy da ngaa doonu jullit doonu murit damay waxtaan ak yow ci ñaar ba ñett ba ci njëkk sama mbokkum jullit nga sañ naa laa labiré ba ca dolleeku it sama mbokkum taalibi nga waaye ba ko ñettal mooy réew mi ñu nekk président sortant bi fi nekkoon da nekkoon premier ministre ci sénégalais yi nga jiite ci laa bokk kon sañ na ma am xalaat ci ñett yi digal la ci duma la wax benn kàddu nag muy luy jóge ci yow di ñëw ci man wala njariñ loo xam ne sàkku naa ko ci yow loolu yitteelu ma waaye damaa jàpp ne bu réew mi amee jàmm dinaa ci dugg bu réew mi naatee dinaa ci dugg looloo sabab ci luy indi jàmm ko naate nga ci laay waxee ak yow situation réew mi neutre ci placé woo pour wax ci ay élection ndax danga far bàyyil sénégalais yi ñu suisé bu deuxième mandat jaadoo ñoom ñooy atte nañ fi jële woon Abdou Diouf ak Ablaye Wade jële fi Macky Sall mi tëwu leen waaye nag dama bëgg jëleen wi rafet ba nga xam ne ëllëg bu ñu naan premier ministre bu Sénégal bu ñu la tegoo nii sa biographie nañ amee woon yaakaar ca koor gan la fale woon man ba ngay ñëw njaareem fang ma fekk sëñ bi ñaanal la jullit yi murid yi talib yi Sénégal gépp am ci yow yaakaar ñu ne fal nañ ko maandu fal nañ ko jub ko am engagement nga déparé sa oto njaareem ñëw fii ci armel yi siyaare sa ndey ak sa baay ci biir armel yi jóge fa soobu ci sab liggéey engagé wu ñu ne premier ministre du politique du far nga xëy dugg ca yooyu yëpp di politique far nekk ca yooya loolu lañ bëggul mu dugg ci yow yéenewuma ci sa der bii nga wàcc di am kersak duggaat Tuuba di siyaare génn kilifa dama bëgg nga firi kër goo dugg mu mel na sa kër mu mel na sa kër ndey mel na sa kër baay nga xam ne ab taalibe nga waaye lii nii la Macky defloo ci miir bii la la jëmee bul nangu kenn def la nagu sarax yow lu mën a xewit jëlal roolub daaru mi nam mooy di ñaw ak a boole ak dajalewaat lu tasaara woon nga fexe koo defar waaye bul dugg ci lu yàq bul dugg ci leneen looloo taxoon ma yónnee la message bi bu ma paree ak yow it incha allahu rabbi numéro bi lu may supprimer la ndax soxla uma ko sama téléphone waaye message bi laa bëggoon mu wàcc sa téléphone jërëjëf ku nuy wax sëriñ Abdoulahat Mbacke moo ma jox sa numéro nee na ma bu ma la envoyé message naa ko wax ne ko maa la jox numéro bi jërëjëf